ñëwaat di leen jox seen di nuyu sunu mbokk yi nga xamante ni ñooy seetaan la sunu xalaat TV waaye ñu ngi fii ci arène nationale tey yamoo samedi 9 décembre journée Diouf production jeunesse ak Boy Seydi. Boy Seydi. Boy Seydi Seydi. Boy Seydi waaw Seydi. jeunesse daan na ko jeunesse daan daan na ko jël gaaw combat gaaw na. jël bu gaaw la ko daan. combat bi matul une minute. matul une minute. ay seconde la ko jeunesse daan. jeunesse daan na Boy kon tuuti dina gaaw ndeysaan bu gaaw waaw bu amul benn wérante nii daal bu ko combat yëpp neex dina gaaw